lay cosaan ci feet ak népp luñ ko mënti tuddee dafay bokk ci màndargay diine boromam benn màndarga la ci màndarga yi koy ràññetle bépp xeet ak ñu ko topp walis beneen xeet dikk na ci ay bind yu bari ci alxuraan ak sunna yuy tënk feetu jullit ñi ci ñaar ci tabaski ak korite ak feet buy ñëw bépp semaine di aljuma yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñeel ne bépp xeet i feet lii kat mooy ñun suñu feet waaye lépp lu dolleeku ci ñaari feet yi lu mel ni cinq décembre wala 30 décembre wala yu mel noonu le daganul ci jullit mu koy compter wala bokk mu ciy feetu wala mu leen ciy ndokkal wala di bokk ak ñoom feet boobule dafay dugg ba léegi ci tere biñ ko tere jox leen ay cadeau wala jaay leen mbir yi nga xamante ne ñoom duñ koy soxla seen bitu feet yooyu le lu mel ni ay lamp ak i sapin wala xeetu lekk loolu nag duñ ko tere ngir ñaari mbir bi ci jiitu mooy niru nirulu ak ñu dul julit ak saxalal leen loolu ñu nekk ca bokkul ak diine ngir jullit bi kat dañ koo tere ci mu wuute ak ñu dul jullit ci lépp ñaareel bi mooy daf cee nekk tamit sos ci diine yàlla lu ci bokkul ibnul qayyim ne amma nag ndokkal leen ci lay màndargal ñoom seen diine loolu dafa xaram ci dëpp borom xam xom yi mel ni ndokkal leen seen bisu feet yi wax leen bon fête wala bonne année wala yu mel noonu le kon bu muccee ki ko def ci kéeféer li ci gën a tuuti mooy tàbbi na ci lu xaram loolu nag wanewul ni ñaawal jëflante wala jalgati ci ñoom bañ a jël bañ a bokk ak ñoom seeni feet wanewul jalgati wanewul tooñ waaye ke jullit bi dafay ràññetle boppam ak gëm-gëmam ak lépp luy màndargay di lem ci wanis lu dul lool daga ne nag jël lenn ci ay kado yu bàyyeekoo ci ñoom loolu kenn du ko konte bokk ak ñoom seeni feet wala saxala leen seeni feet yoo ñuy def da koy jël lekk ci anamu mbaax ak wala tàppe seen xol wala bokk woo leen ci lislaam fi lekk loolu ñu joxe nag nekk lu ñu rendi ci seeni feet yooyu la cheikhul islam ibni taymiya rahmatullahi alayhi mu ne nangu yenn kado seen bési feet loolu daga na ngir ali ibn abi taalib mës nañ ko jox benn kado ci feetu Nayruus mu daal di koy jël abi barza nekkoon di dëkkook ak ay majuus ñu dul jullit te ñoom doon nañ ko jox ay kado ci seen feetu Nayruus wala seen festival yooyu le mu doon wax wax waa këram jël leen ko bu nekkee ay fruits la ngeen daal di koy lekk waaye lu dul loolu delloo leen ko